tey li ñu fas yéene indi Adja. Mhm. Euh, daañu dem ba Thiès boobu nga xam ne maa ngi dégg ngay tudd Oustaz. Mhm. incha allah nañu fàttali ko nag ni Idrissa seek mi réew mi doon mbamb euh, ci ay wax jàpp ni euh, ku manqué ay ngëm-ngëm la. Mhm. gis nañ ko ci ab jataay bu yaatu bu Idrissa Seck am ak président Macky Sall ci foofu la conseil des ministres décentralisé ba amoon ci Thiès. wax na nag ci mbiru troisième mandat bi nga xam ne ñu bari ñu ngi naan ndax dana ko du ko Idi daf mel ni jël na li nga xam ne mooy ay responsabilité am wax li nga li muy wax waa ji donte ne raay na ko. xaw na ko kii daal woyofal ko ba mu woyof ma jigéen ci yow la ñuy dooree ndax kàddu sa Seck yi euh, dafa bokk ci ñi mu bett ci yow que Idi dafa waroon ni cell comme ni ko suñu maam sa Niass defee nga xam ne ba léegi mi ngi ni cell maa ngi koy wax alaaji keroog ma ne ko kàngami politique yi dafa mel ni nekkuñ ci réew mi parce que au moins lu ñu ànd ak waa ji ànd ak waa ji waroon nañ koo xamal ni ko kat li rayoon fukki bakkan ak lu teg ci jamonoy wàdd troisième mandat la woon li taxoon nga jël sa mat laa dem ni da ngay fanaan ca bërëb ba troisième la woon 12 ans après wala lu ko jege est-ce war nañ àggaat ci coow loolu ay kàngami politique nekk fi ni cell lu dul ni rek Ousmane Sonko opposition bi ñoo ciy wax idi ndax waxam ji bett na la wala da nga jàpp ni wax ji dafa am lu ci lal wala fii ak mën nga koo gis mu génnaat jéggulu wala mu ni maa waxoon waxeet waaw sooy bu man nag wax dëgg yàlla bokkoon naa ci nit yi nga xamante ne nii ku gëmoon pré euh, Idrissa Seck la ah, bien avant muy muy euh, def euh, seen coalition boobu ñu dippee mburu ak soow depuis loor nag man dootul waxati lu ma bett parce que bu bu doon loolu defu ko amaana tey su waxee yenn wax yi peut-être nga wax ni lii lu normal la mm-hmm. position am la parce que jamono jooju noonu opposant la woon tey jii nag soo demee ba toll fii nii peut-être dafa dem ba xam ni président bi fi mu toll nii mm-hmm. ñëpp xam nañ ni jeexal na peut-être mu commencé di cof affaire yi ndànk-ndànk ngay dem nag mais nee na mburoog soo mi foroxagul ci la jëm nag parce que euh, seetlu nañ ni à chaque fois képp koo xam ne yaa ngi biir ak APR wala nga bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar wala nga ñëw rallier wu ci président bi rek une fois nga contre li nga xamante ni moo di troisième mandat da ngay gis après polémique bi dafay commencer du juddu ñu nga gis sax ñenn ñi sax dañu dem ba ñu jaral leen ñu dàq leen ci biir euh, parti bi mhm. kon donc si la jëm parce que mhm. jàpp naa ni lépp loo xam ne nii wax na ko rek parce que dafa xam ne président Macky Sall fi mu toll nii mhm. nit yi wan nañ ko ginnaaw ay mbiram léegi ñu bëri kenn soppatu ko parce que li ngay wax tout à l'heure rek ni moom moo taxawoon di xeex xamante ne ni moo di troisième mandat ba fi eh, jamono yi nga xamante ne ni euh, avant 2012. muy mm-hmm. nekk président de la république mu xeex ko ba mu jaraloon ko yenn combat yi euh, toog def vidéo am ne bu ko naree def sax dañ koy fekk biir palais déloger ko tey nga bëgg a jël ay tànk yoo xamante ne nii même su fekkee ni yow nangoo wax wax waaw nangoo wax déet. Mm-hmm. ñi ngi gis à chaque fois sax ay ministre ak ak ñëpp ñoo xam ne rek dañu bokk boota ci sa ginnaaw. Mm-hmm. tout le temps dañuy jéem a fexe di def ci bopp nit ñi euh, possible la te sénégalais yi ba léegi nii mënuñu ko nangu te nañ ñu dimbali rek ngir laa laay war a suuli hii mhm. buñ ñu dugal ci yenn gaam yooyu parce que bu ñu fa duggee rek mën na indi jéyee boo xamante ne nii kenn du xam fu muy yem te Sénégal jàmm lañ fi mës a bëgg jàmm lañ fi mës a woote mhm. loolu la fi suñuy maam bàyyi te ñun it bëgg nañ bu ñu ëllëgee suñuy doom yi ñu fi bàyyi wala suñuy sët yi ñu fi bàyyi mhm. ñu doxal jàmm jooju son yi bu jóg ma jigéen Diop moom ci nitu Thiès yi la bokk kon boog su waxee loolu nitu Thiès loolu ñoom ñoo ko xam seen biir Euh, kon de comme ñoo toogoon di ŋàññi waa ji dafa mel ni moom de euh, jël na risque wax loo xam ne ñi ko ñemee wax ci parti APR. Mhm. bariwul ñi ko ñemee wax ci ñi ànd ak président Macky Sall coalition bariwul. Mhm. ndax waxam ji da jàpp ni waxi kese la lu mu gëm la. Mhm. wala ndax danga jàpp ni dañ dañ faa toll nag. Euh, sooy bu ñu amee takk ak seetlu Oustaz Hady Niass yàlla na yàlla guddal fanam. Euh, semaine bi ku ne xam na ni am na gàmm gu rëy gu mu doon def. waaw ca arena. ca arena ci ca euh, mhm. euh, mën naa xam ni tey suba ñun moom lañu ñu ubbee sax sunu émission bi ñuy def ci rajo bi. alhamdulilah. waaye dafa wax problème mu Sénégal ba pare daal di indi saafara Sénégal. Mhm. saafara si. waaw dafa wax ni dañoo war a am. ay politiciens yoo xam ni dañuy politique comme nu Seydina Mohamed doon politique dafa wax ci wàllu justice wax ci wàllu communication rawatina liy dugg ci internet bi làmb yooyu yëpp dajale bokk na ci solution bu njëkk euh, sooy bu mhm. mooy li ni li gars yi di woote ci wàllu capitalisme nañu fexe ba def le tout bu ñu déglu woon ni l'islam programmé te mooy wàllu zakat ñu incarné ko. jàmm de daal di am. dëgg la mësañ def émission nag ci plateau Jomet man leen Idrissa Seck c'est un grand technicien. technicien waaw c'est un grand technicien. technicien foo foo tegoon. c'est un homme politique. Mhm. te fi ma ko tegoon mooy. dafa doon koo xam ni ñëpp nangu nañu ni am na xam-xamu politique. bu dee Sénégal fukki lañ ci société bi sii si nangu nañu ni am na xam-xamu politique. kon duggam gi ci gouvernement bi stratégie la wala wala man politique la. wa non duggam ci gouvernement bi. Hmm. boo dégloo ci biir waxam ci biir waxam bi muy def déclaration. Hmm. da ngay gis ni stratégie la. Ah. stratégie bi nag mën naa am benn côté négatif am ci. Hmm. mën naa am benn côté positif am ci mais lu mën a xa lu mën a xew sooy bu. nañu xam ni milieu politique. bu la ci dara bett. loolu loolu waaw bu la ci dara bett sooy bu mhm. accepteel politique amul lu mënta am wax nga benn kàddu gu am solo mooy nee nga lu kenn ñemewut a wax APR mhm. président de la république mhm. Idrissa Seck fexe na ba wax ko mais xoolal dimension intellectuelle bi mu ko incarné devant le mu fexe ba communiquer ak Macky ci communication boo xam ni raay na ko gis nga ndaanaan dëgg balaa mu lay xas di la wax li dëgg gi nekk ci yow dalay tagg tagg ba sa si ba sa si daw. ba nga yëg ni yow kii taggal na la say maam mu door a jël nag. puso bi di la ko jam door a jël puso bi di la ko dam foofu lenn dong ngay def mooy da ngay reetaan. Mhm. gis nga bi mu ko nee xam nga Idy dafa mën politique. Mhm. bi mu ko nee maa la doon wax. Mhm. ni sa politique yow sa vision. paasewul jam ñaajo. ndekete yow sa vision dëppale na àdduna ak bitim réew. loolu ngay dégg. loolu man politique la. loolu mën politique la. te soxebu. Hmm. Macky Sall. Hmm. képp kuy wax naan mënul politique. Hmm. wala xamul fu mu jëm. yaa ngi ci erreur. dafa am nag loo xam ni dañ ko war a teg ci taabal bi. Sénégal am jàmm. Macky war koo woote. ko war koo woote. problème mu troisième mandat. waaw su naree taal réew mi mais mais nga baal ma oustaz bala ngaa de man man damaa bokkoon ci ñuy wax ni. Mhm. président Sall dafa man mën politique Seydina Omar euh, Bun Khattab. Mhm. journaliste la Walfadjri. Mhm. Euh, daanañ ci wax. Mm-hmm. ma gëmoon li nga gëm mm-hmm. mais man tey su ma neexee ma ni sama wax jooju gëmatuma ko mm-hmm. waaw lis président Sall mënta politique non xama soy loolu parce que man politique du sukaa waaw euh, éliminer say adversaire politique waaw jëfandikoo justice su réew mi loolu du man politique xanaa kay nañu dem ci ay idée ci xam-xam ci ay débat sooy bu man maa lay wax ne la Macky ah, il est fort c'est un grand politicien yow loolu nga jàpp man sama jàpp sama gis-gis sama gëm-gëm sama jàpp-jàpp ah lii muy def ni xam nga politique la ko un grand politicien weesootul hmm. xoolal fi Abdoulaye Wade jaar ak moom su kaa hmm. kan Abdoulaye Wade fi mu jaar ak Macky xoolal post yi mu ko jox yëpp yëpp euh, ma jigéen muy dem muy dem ndekete moom Macky postam yooyu mu koy jox yëpp muy dem siis bi Abdoulaye Wade toog foofu la Macky teg bëtam te hmm. te gagné na ko tax sa Seck moo wax ni mbooleem lu ko dal moom politique bi ki ko politiser buñ la laajee du paate du sàmb mag euh, Macky Sall la. d'accord xam nga ni kooku bu mënuloon politique. d'accord du doxee doxin woowu alaaji Sow. jëf mi ngi noonu euh, Souka. Euh, noo gisee géewu politique bi ak Idrissa Seck def naa yéen a bokk seen Cees yéen ñett. waaw am na moom. moom moom it muy mbokk sax. taxaw na daal osé. ñi may mhm. wax dëgg président waaye raay na ko nag. ci mbiru troisième mandat. waaw raay raay raay bi mu ko. raay na ko nag saf waaw bi mu ko raay na ma. saf na la waaw xam nga ndax lan. Hmm. nit boo koy wax dëgg dafa am fooy jaar ak moom. Oh. Mhm. tax Idi daana ko wax dëgg di daawul raay. Euh, moom rek moo ko ci wax dëgg. te sa nit boo ko bëggee danga koy wax dëgg doo ko doo ko doo ko jay. Uh-huh. xam nga ñu nekk ci ñi ànd ak président Macky waxuñu ko dëgg ñu ngi koy nax. ñi ànd moom. ñu ngi koy nax bu baax moom nag président moo war a toog ci rukkam mu xam ne ñu ngi koy nax gis nga mbooloo mi nekkoon keroog Thiès ñëpp. Uh-huh. ñu ñu wax ni président Macky bu mu bu mu gëm mukk ni président moom moom la ñu àndal waaw. da bi xam naa dégg naa la. tey bu fekkee damay politique ma bëgg dara deuxième mandat. Hmm. xam nga Abdoulaye Wade def na ko fi. Hmm. mu ñëw nit ñi gëmloo ko ni ko mbooloo mi yëpp yow lañ àndal te teewul ba mu ba mu daj ba mu ba mu jotee nu mu def. Hmm. kan moo ko gagné du président Macky Sall. waaw waxuñu ko dëgg ne ko moom moom moom lay Abdoulaye Wade président lay Wade nit ñi waxuñu ko woon dëgg la ko daloon loolu moo nara a dal ki nga xam ne moom moo di président Macky ndax nit ñi waxuñu ko dëgg. dañuy bàbbeeku ndax nit fu ne fu ne la jóge ñëw ànd ak moom ñu mu war a naan ni lii dama koo gëm dama koy gëm moo tax mennum sa Seck rek moo ko wax dëgg ni ko defal lii ak lii ak lii ak lii ni ko nag da wax sama vision sa vision damaa defoon woon fii la yem mais wër na àdduna xam nga wax na ko loolu ba pare ni ko nag lii lii moo war a am ci loolu mu ko war a wax moom bu demee bu mu ko ci mere bu mu ko ci wàccee bu mu ko ci def dara su ñibbee këram ba wéet moom kese moom président Macky. Mhm. pourtant Macky moomu sukkaa nga baal ma moo ni euh, Idi moom moo ne woon euh, président yi say kàddu dafa ratax ku ca jàpp daanu. waaw lépp waxoon na ko. ba tey nee na ko wane say kaddu dafa woyof lool. xam nga. waaw euh, yooyu yëpp itam Idi waxoon nañu ko ci. gis nga politique dafa salte sooy bu. Mhm. politique tey mën nañoo mën nañoo xuloo xeex bu nu génnee àndaat. loolu mooy ci politique. da ngay dégg nit ñi li ñuy waxante doon ay xarit. Mhm. nga ni eh, digg diw ak diw ah, bàyyi am nañ problème. boo leen déggee après ñoom ñaar. ay nit lañu mhm. comme diggante ki nga xam ne moom moo di Sonko ak kii ki nga xam mooy premier ministre mhm. ñoom ñoo nekkoon seen impôt et domaine waaw dañ leen après dégg keroog li mu sànni pic bi mu sànni Sonko mhm. après Sonko sànniwaat ko ko mais est-ce que ñoom ñaar seen diggante noon la mel d'accord mën nañ jàpp ne politique la daal politique rek la te mën nañ jàpp tamit ni ba tey politique mën naa amee fu ne te surprise bu ne war naa mën a am mais président yi mm. dama bëgg moom mm. ci boppam bu mu meree sa Seck mm. ndax moom kese moo ko ci wax moo ko wax dëgg d'accord bu wéetee ba pare na toog na xalaat ndax des fois nit dina la wër di waxtaan ak yow nga def di la di di la jay mm-hmm. naan la lii ak lii ak lii ak lii moo am fekk orque du loolu. d'accord voilà ah, na na na na na xool. Ah, ah, uh-huh. dama ciy wax rek li mu wax nii moom su kaa mhm. dafa am solo trop. Uh-huh. mooy président Macky Sall na fexe ba lii. Uh-huh. bu mu ci mere mukk Idrissa Seck. te lu am solo la nag lu am solo la. d'accord la bëgg rek moo lay wax. mais am na ñoo xam ne duñu la wax mukk dëgg. ay dañ naan la yaayu réew mi gis nga mbooloo mi ni mu mel nii yow lépp yaa ko waral eh mbooloo moom ban mbooloo la. ay xale ñoo nekk ci biir mbooloo mi xale bi xale yi nan lañ àndal. Ousmane ko xale yi moom lañ àndal. ndax too xalaat. macha allah. Mm-hmm. mi ngi noonu dëgg jooju am na ku ko waxoon ku tudd Wilane waaye ñaari fan lañ ca teg mu génn ca la mu nekkoon ba mu set wecc kon nag euh, idi mi ni ñëwoon waa ji ay waxam da wérut te du wax dëgg boo xaatee lit à tout moment mën nañ gis leneen lu yàllaa xam alaaji ndax da ngaa bokk ak ñi xalaat ka idi vraiment nitu nit ku am kàddu la parce que bi sénégalais soxlaa dëgg bi ñu soxlaa homme politique bu taxaw taxaw na wax président Macky Sall ne kat bul bul bul bul bul forcé pour indi jàmm ci réew mi waaw bokkuñu xalaat man ak ñoom. lu tax euh, bokkuñu gis-gis. parce que euh, te loolu mooy àddina. <coughs> bokk na ci li nga xam ne mooy doxal àddina. Mm-hmm. Euh, nit ñi di ko nangu. Mm-hmm. parce que léeg nga gisee nii keneen gisee neneen. noo xam ni bokkuñu mais lépp rek njariñ la ci pénc mi. du dëkk li ci njëkk. <coughs> mooy président Macky Sall. Mm-hmm. bi ko sa Seck di wax sa vision jam ñaajo la yam. boobu jam ñaajoo la yemoon. waaw li Idrissa Seck li mu gis la waxoon du dëgg. peut-être loolu moo tax mu gën a yaatal mbir mi maanaam critique dafa baax parce que parensaay ku lay critiquer dalay defar. critique yooyu mu ko critiquer woon tax na après mu def yeneeni mbir yu bari jëmale ko ci yeneeni kii. donc moo tax opposition am njariñ njariñu opposition loolu la. Euh, moo tax boo bëggee nasaxal opposition rek. Euh, maanaam dootoo dem boo demee ba kenn critiqué tu la. maanaam da ngay nekk ci loo xam ne boo deful ndànk euh, dara dootul dox. moo tax critique yu Idrissa Seck boobu mu ko waxoon moo tax it bi mu demee fekk ji président Macky Sall ñu bari mere ko ci dem fekk ji bi nga xamante ne bi moom la ko euh, fekki. Mhm. parce que nekkoon ci opposition bi moo ëppoon njariñ ci réew mi que mu nekk. ci wetu président de la république. parce que opposition dafa war a exister. président Macky nag bi mu faroo li tax ma ne munut politique man li ma gis nii jàpp naa ni moo tax munut politique. mooy mooy dafa ne dafa falu bëgg na saxal bépp politicien maanaam dootul am ku ko contre loolu ku mën politique doo ko def. Mhm. doo jéem a nasaxal moo taxit bi mu ko defee li xew-xew. maanaam li génn xamatut lan la xamatut parti politique la xamut daayira xamut tarixa xamatut lan moo nekk ak moom en face donc looloo tax mu bëgg a jëli jiwaat politiciens yi mhm. pour parce que dafa bëgg dellu ci li mu xamoon daal ne lii ma jubul xamatuma lii lan la donc nag man politiciens yi ma éliminer woon Khalifa Karim ñooñu faaw ñu dellusiwaat ci làng gi looloo tax mu wax ne daf leen a bëgg amnistie pour delloo si waat leen parce que jaxasoo na ci jamono ji ñu toll nii. Mhm. parce que lim lim warutoon a def la def. li mu warutoon a def mooy lan. warutoon a jéem a nasaxal opposition dafa waroon a dooleel opposition. Mhm. nga xam ni opposition moo koy permettre mu mën a liggéey. Mhm. parce que li ko ay jege ñaaleem du wax opposition ñoo ko mën a wax. tey ñi lay taxaw di la tàccu baax na parce que da lay encourager. Mhm. mais tamit kii taxaw di la critiquer baax na parce que day moo tax nga moytu say erreur te lépp looy dugg di nga ko seet seetantal ko. Mhm. donc le fait que mu bëggoon a loolu loolu moo ko indil situation bi nga xam ne Idriss rek kàddu yi mu yëkkati. Mhm. jëmale ko ci président maanaam daf ko monter li ñuy tuddee transformateur ngir rajo bi àttan courant bi. maanaam li mu ko doon wax laataan mu koy wax. daf koo raay. ba noppi soog ko ko wax mu nekk dëgg goo xam ne nag mhm. président da ko ciy mere mhm. parce que mënu ko cee bañ a mere parce que dafa am ñu fi jaar ci li nga xam ni mooy dëgg googu mhm. am na ñu ko fi jaar ñàkk seen poste ci kanam tuuti bu ñu ko dàqee wala ñu jëlee ko ci kii bi wa ilaa ñu xatal ko du ma bett c'est parce que waa APR dafa am benn gis-gis bu ñu am jaaroo fa nga jaaroon ci mimi ni ku ñu préparé la Idrissa Seck est-ce que nekkul kon ku ñu préparé non non non non non xaar alaaji non xaar alaaji yow yaa fi mhm. ñëw mi mi mhm. jël langam di dem. waaw jël aw yoonam di dem. Mhm. nga ni dañ koo ngemb dañ koo préparé. def ko victime. waaw muy victimiser pour Sénégalais bëgg ko. léegi Idi kon moo la wax ne la wax loo. Idi mënut a rebondir ci réew mi parce que. dafa xas ba euh, nasax ba pare. Ah. mënut pour mu rebondir problème la munul ne Dakar du saf ñaari yoon Idriss Seck daf ko fay amoon toppi lay wadd ñàkk ko fi Macky Sall nekk tey moo fa waroon na ne. mais bëggoon lu yomb moo ko indil li ko dal comprendre nga parce que tey bu fekkoon ne resté na am na yoo xamante ne bi mu garder ay principe am tey président Macky Sall du dox ci kawam kon tey moom moo waroon a nekk place bi tey nga xam ne moom la nekk. Mm-hmm. loolu njuumte googu def na ko donc ndeysaan di topp na ko benn yoon du ko toppaat. kon yow yaa ngi kon dàqoo ba ëllëg ñu bu ndoxatal ko génne ko. non de mën nañ ko def. dama ne la loolu yoon woowu waaye après moom laa def ko. ci kii boobu laa jëm dama ne opposition. dama ne la APR. Mm. loolu mooy li nga xam ni mooy seen mbir. ñoom li ñu gëm. li ñu gëm lenn la. Mm-hmm. mooy troisième mandat bi parce que dafa am ñu wër président ñoo xam ni seen nekk dara ginnaaw bi président nekkee dara ci la ñuy soog a nekk dara. Mm-hmm. maanaam nekkuñu woon dara. te ñooñu tey lii ñu ngoy bu fekkee ne rëcc na. Mm-hmm. dootuñu doonati dara. moo tax ñooñu ci seen jëmmi bopp. faw ñu bëmax ko ci troisième mandat bi léegi nag. Idrissa Seck li mu ko wax moom mooy li ko ñëpp di wax. Hmm. yàgg nañ ko ko wax fii. ngir ëllëg si biir. Marième fay mën a nekk ci biir réew mi. Hmm. di demi nat. Amadou Ba ak i kii di dem ci ay mbootaay di waxtaan ak ay kii doomam yi di jaar nii di dox ñaan leen seen papa de defoon na lii ak lii ak lii. defar na fi lii parce que bu fekkee ne ci plan matériel ak yooyu am na bilan boo xamante ni bi mën nañ ko wax nag sa papa def lii sa papa def lii sa borom kër a def lii. loolu ngir mu mën koo am mooy décision bi nga xam ne moom la war a jël te ñu bari di ko jañax ci leneen loo xam ne seen njariñu bopp kese la mu lànk bañ a dugg ci lu ni mel jéem a delloo xalaatam ci li nga xam ne Idriss Seck wax na ko ko ci pénc ma parce que loolu mu ko wax moom la ko sénégalais yépp di wax mu léegi bañ a dugg ci ay troisième mandat jël décision yoo xamante ni bi tey dina mën a sorti par la grande porte loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li gën loo looy nooy gisee nag ñi koy sànni xeer ni la daloon mimi moo ko dal mimi ñu bari nee nañ su fekkoon heure bi fekk na ñu def ko mu nekk présidente euh, assemblée national du coow day noppi parce que nee na dañ ma ko deful ma gedd léegi am na ñu ne Idrissa Seck bi muy ñëw dafa am lu ñu ko digoon Mhm. lañ ko digoon ba léegi nag xam na ni cër ba ña ngi koy bëgg a jox Amadou Ba ma ngay ma ngay xeeñ Amadou mu révolté wu mais lii bu doon lu mu gëma li fi passé yëpp kon idi di wax dëgg loolu amul solo Cheikh Touré da ne mhm. wax bu jógee seetal njariñu wax ji paa kii moo ko wax Idrissa Seck man euh, këni moo ko wax man li mu wax mooy li ma amal solo maanaam këni li mu wax mooy li ñëpp di wax ci pénc mi yaa ngi dégg mais li mu wax nii nag mimi dafa daan wax. ji wax ji moo ma moo ma moo amal solo laa wax. wax ji wax ji ci boppam. wax ji mu wax président. wax ji mu wax mooy li am solo. yaa ngi dégg wax jooju ci laa ne que ni nag moom day yeneen intérêt moo tax mu def di ak mu def laa. Mm-hmm. nañ yem rek ci li nga xam ne moom la wax ngir wax ji mën a peser euh, doole yi wax ji wax ji hmm? doo ko toj. non non wax ji wax ji tojuma ko loolu expliqué naa la. toj na ba pare wax ji toj na ba. d'accord dafa bëgg wax ni peut-être. dama ne mën na ne waa APR lu ñu def. ndax dem dikk parce euh, que lii ñu Idrissa Seck wax dem boo xoolee tàcc yi mm. demee wuñ. <laughs> bi mu njëkkee wax tàgg président dégg nga tàcc ya na mu waaye ba mu ko waxee li nga xam ne moom la ko wax. tàcc yooyu gis nga na mu. maanaam ànduñu ci wax ji. Mm-hmm. donc wane nañ ko. Mm-hmm.